Euh, jotaay wax sax xalaat bi fàttali ponk yi nii la tëddee woon tournée économique bi ci la daal di bokk ba ci université yi ak seen i nag ñaxtu yi ñu amal tey mooy bu Thiès ak bu diwaanu Kaolack ak euh, yàqu-yàqu ya fa am wàllu ñiy faatu ci géej gi ba ci sax bande filaaw bi mooy nekkoon ñaareelu ponk bi ngeen mën ci àddu ñu koy tàmbalewaat ku jiitu ci ligne bi ñu jël ko 88 628 98 98 biir réew mi bitim réew 33 841 22 33 allo. allo Adama. allo waaw. Ismaël Mbaye laay Cambérène moo nekk ci buum bi. waaw ñu ngi lay nuyu Mbaye laay. Adama bëggoon bokk ci débat bi. ay ca yow la ñuy déglu. bisimilah nabiku man dama boor a ñëw rek ci tournée économique boobu noonu président def ci diwaanu Fouta. tey waa ngi juloon aye woon ko vraiment mu nekk satisfaction di ndokkeel waa ngi juloon yëpp di ziar suma mbokk yi fa nekk Seydou Mbow ak doomam Samba Mbow. vraiment euh, nekk na loo xamante ni Adama li olof naan ku lamb yaa tey. daagu fañ la nobee dafa dem ba nga xamante ni tey dëkku waajuru président Macky Sall bu góor mbir nu maaju sax tey dañu doon manifester mais président dafa war a yegg si foofu kon li ñuy wax naan daagu fañ la nobee ku la yaa tey loolu mooy dëgg ñii di manifester étudiants yëpp dafa am fu ñu bokk di ko jéem a wane bëgg suul li président def ci diwaanu Fuuta mbooloo moom ñu gis moo yóbbu seen fit man yàgg naa la wax ni la coow du fi jukkanam la ñëppay politique sama waa ji sama waa ji ndama ngi ci gàccee ngi ci mais président Macky Sall macha allah musul def musul yee fitna musul wax luñ ko jëmee musul nekk si benn lu luy jëmee Sénégal kanam ci la nekk kenn musu koo dégg ci yokkataan kenn musu koo dégg ci viol liggéey Sénégal la fi nekke mu ngi liggéeyal Sénégal gars yi nag instant bi ne dañu koy jéem a saboté étudiants yu ni laari rek ak yu nii li ñooy def yooyu noonu yow li ngay yàq yaa koy soxlawaat di jooy kuñ ci jàpp nga naan may ba liberté provisoire rek dañ maa dóor dañ maa nangam dañu bàyyi ñuy def président Macky Sall day liggéey fowul caaxaanul Sénégal allé de l'avant te adama liy xeeñ ak a neex juñu rek doy na borom xel liy xeeñ dafa neex lool ku gis population yi ni ñu génnee ci dëkk bii nii mel ni Fuuta sa yaram day daw sax da ngay xool ma ne lii est-ce que dëgg la ñu may wax ñu àlla leen jox 15000 ak 10000 loolu ban état moo mën jox population boobu noonu ku nekk 10000 wala 15000 nañ dem wuti militant coow du fi jóg kanam la dañoo bëgg a falu dañoo bëgg toog te xamuñu yoon bi président Macky Sall yar la woote na bar la woote kooku maa ko tuddee mborodi dañ koy jàppale tey dañ koy jàppale suba yàllaa yàllaa ñu ko bëggloo dañuy jël suñu xaalis dépasse wax sa xalaat moo gën a seer chaque jour nga jaay millions waaw ah, ah, ñu jël keneen ci ligne bi Assane 88 628 98 98 ñu woyal wax sa xalaat bi allo. allo Sud FM. allo waaw. Adama. la béy. hélas Alioune Wilane Géejawaay Sam Notaire. Wilane ñu ngi lay nuyu ak waa Géejawaay Sam Notaire. ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax. Mhm. Euh, Adama ma bëggoon wax rek lu jëm ci mbirum bandu filao yi. Mhm. ndax euh, semaine dernière bii dama déggoon benn opposant boo xam ne man jàpp ni ma koy waxee mooy moom dafa mel ni géej moom dañ koy estilé mu ci doon wax ci wàllu jëm ci mbirum bande bi ak ay luubal ma koy wax rek ne ko moom bu fekkente ne amul information géej waay parce que moom muy Malick Gakou parce que moom lépp ci ay tournéem yëpp parce que moom géej waay moom booleetu ko ci kon jàpp naa ne kon bu amul information géej na laaj conseil yi nga xam ne tey ñun ñoo ko ko mayoon mu am co onze conseillers yoo xam ne ñu ngi jóge woon ci AFP mu jël leen seen ci seen maayen yóbbu leen ci parti bu amul information na ko laaj ñooñu. Adama. Hmm. bande bi yaakaar naa ne ñun am nañ ci ay information yoo xam ne wax dafa jooy ñu ne ko lu tax ngay jooy mu ne ko dañ mu ne dañ koo wax te jotagut man bu jotee ci kàttanu yàlla wallaay walaasim Malick danaa ko leeralal loo xam ne euh, xar-xaru doj lay doon pousse du ko gaar bi nag. société civile bi nga xam ne ñooy tëb di wadd di wax ñoom ak askan wi dama jàpp ne kon ñoom ñoo bëgg a moo bande bi. Adama bande bi fu ne boo ñëwoon tey di nga ci fekk ay tool di nga ci fekk ay euh, ay ay ay ferme élevage yoo xam ne tey amul leen loo xam ne état def na ko fi wala wala wala lu mel ni mairie bi. population bi joo koy jëriñoo depuis 2014 ba léegi bi ñu déggee ne bande bi date de vie bi dafa jeex ñu war ko déclassé depuis booba léegi ñu ngi wut ay faux papier lu ne ñu ngi koy def. amul lenn loo xam ne mairie dugal na ci loxo wala mu dugal ci ay procès loolu moom dama koy leeral li nga xam ne tey moo fi nekk ci ñi fi dëkkagum. mooy magistrat yi magistrat yi liñ fi déclassé quatre hectares la et demi quatre hectares et demi yooyu yaakaar naa ne boo xoolee tey trois hectares et demi moo moo moo mooy li nga xam ne moom lañ moom lañ moom lañ euh, morcelé def ko ay borno le reste nag loolu moom buñ ci yeggee nee naa la. Mm. ngar naay la loo xam ne maa waaw ah, kon ñu xaar keneen ci ligne bi jël ko ci 88 628 98 98 ak sa xalaat. salaamaaleykum waaw waaleykum salaam. Oustaz Adama. Ah, waaw la bay. bàcc si sama bàcc waa ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm. ok ñu ngi lay koy ñaanal yow. di ko ñaanal Sénégal yëpp di ñaanal àdduna yëpp di ziar njabootu ci village Malick yëpp yàlla na yàlla dafa jàmm. Hmm. Adama. waaw. man may ma nag man ndokkale sama mbokk supporter France yëpp. vraiment tey kontaan nañ mat gars yi football nañ ko ci yoon respecté nañ ko suñu entraîneur bi wane nañ football technique vraiment mat bi neex na daal kontaan nañ daal yàlla nañ ko jàppoo niveau final ak ñeneen coupe bi yóbbu ko Paris Adama hmm. xam nga tool yëpp lan laa waaw politique képp ñi fi nekkoon doon tajoga yàqu ñii fi ba léegi kenn jibiwu léegi nag man li ma mënta concevoir hmm. mooy nga ne man nañ ma defaral eggale nañ ma yeggalee li li ñu ma commencé loola ngay kaas pour ñu yëgale nga toj lañ fa jot a defa ko fi ñëw ñooñu ay politiciens lañ comme ni ko Mbaye laay waxee il a parfaitement raison jamono yi comme président mi ngi dem mi ngi mi ngi immigré à la une journaux yi yëpp fépp foo dem loola la ñu tournée du président la ñuy waxtaane ñu ne nañ créé benn affaire pour mu saboté ko te li ñëpp nag lu dul politique waru gis nga mën aadam bu woon président la république élection locale yi sax yu deux mille vingt deux yi dama dem dem dem couplé ko ak élection yi ñu voté benn yoon dem liggéey ba 2024 ak jàmm ku nekk na ci jàmm bu ko deful duñu liggéey duñu baax ndax si ñi fi nekk politique lañu bëgg di dunde di créer ci réew bëgg a falu dong la wàccal ma toog doo nga fi am koo fi gis na am nga koo kenn amee ci am kenn ku fi farul kenn amul te suñu nekk kenn ku nekk sa bopp nga fi nekk ak parti ba nga far nañu bàyyi li ñuy def tajam yàq amul benn njariñ xam na dañ ci dañ tojoon total bi yëpp di tàcc tey ci EDK lañ bëggoon a toj il a fallu que ñu encadré il faut ñu wax ni ñu lu leer boo amee la naqari dama nga man yëpp yama si biir université wala sax boo nga taal université mais station jàmbur oto jàmbur pour quelle raison boo waxee ni ñu naan tey enseignants yi professeurs ñoom sax tey ñoom hmm. euh, ñu keneen kon mu nga ko ci wax sa xalaat bi la bokk wàllu université tournée économique bi waaye itam Euh, nuwaayaat yi ak e li aju ci bande filaawo bu Géejawaay allo waaleykum salaam. Oustaz na def. waaw maa ngi fi. maa ngi lay nuyu di nuyu Assane Thioune. waaw ngi lay fay. ziar sama gars yi génn léegi ñoom Bachir Mbaye laay di ziar nag Moussa Faye. Mhm. Oustaz. waaw. di la wax rek expérience rek ci Baye Omar Gueye. waaw. ni ko nanu jàppale ci serveur bu waay. Mhm. waaw serveur yi ah Oustaz des da ngay dugg mu accepté la pare te doo dugg. loolu loolu daal doléance ak dañu defar serveur bi mbaa ñu jënd serveur bees mbaa ma loolu boobu daal sama doléance ak doléance yu bëri bëri. oustaz. waaw. la ma waxoon démb laay xar rek di féliciter président Sall ci la mu def ci askanam ca ca ca ca ma ca ca. oustaz li ma la waxoon démb rek. waaw. président Macky Sall. amul yóbbu fa loxoy neen yóbbu fa loxoy kese. dafa dem ci gox dëkk boo xam ne dañoo bokk Sénégal. Fuuta gi Sénégal la bokk. war a amul jumtukaay te jumtukaay ku fa yóbbu mooy ki jiite réew mi moom nag dem na fa yóbbu la fa la mu fa yóbbu jëriñ na waa Fuuta moo tax waa Fuuta jën lii mooy waru garam su fa demee bu fa yóbbu dana jën teeru ko li ñuy teroo buur lii am Fuuta kenn mus koo gis waaye lam fa defee kenn mus ko fa def lam fa amit kenn mus ko fa am kon oustaz hmm. nit ñi dañu dellu seen bokk te xam ne réew mi noo ko bokk moom allah kulli dana mas a jeexal mais su jeexalagul kenn mënu ko fay jëlee réew mi dañ ko bëgg a yàqu oustaz ci violence léegi nag moom ci réew mi violence verbale violence physique lii nag ñu ko bëgg a jiite nag mu bëgg sax mais du du sotti lii nu ngi ko yar mais li ñuy yar su màggee du baax ci réew mi ku mer jóg di yàq ali jàmbur di yàq ali li mais ustaas lii pour la la ku ñu jàpp dañ lay bàyyi pour lan yàq bi mu ne ci réew mi pour lu bëgg a yàq réew mi ñu leen seetaan kenn du jàpp kenn wala ku ñu jàpp bàyyi la avec ça euh, lii nañu ko arrêté nañu ko faj lii mooy dëgg te aussi vraiment ustaas mm-hmm. man damay ñaan gis nga affaire étudiants yi. Mhm. ay campus moo la am. Mhm. ak campus wërtul am ne la ñu di xëy di jàngi di dem di waat ñibbi kër lii mooy dëgg yàq bi ci réew mi fu lan la. Mhm. Ah, loolu di jàngatam ñu xaarati keneen kon euh, Assane ñu jël ci ligne bi 88 628 98 98 allo. allo allo waaw. allo oustaz. waaw. booy Malika la na def. ñu ngi ñu ngi fii. alhamdulilah ah man de oustaz eh, li góor gi tedd gi waxoon rek maam Cheikh rek réew mi tànk ginnaaw la am de tànki kanam moom amu ci dara wax dëgg yàlla la moo waxoon rek ni sama waa kër nee naa leen bu leen natt seen tànk ci ci réew mi natt leen seen tànk ci bitim réew mais lii ñuy def nii tourne surtout la rek ñoom ñi nga xam ni bitim réew la ñu yaakaar bitim réew lii amu fa di inauguré ay affaires yoo xam ne ay sous préfet ko war a def ay gouverneur au moment yaa ngi univers yaa ngi inauguré ay université sa université yaa ngi nii tu napp sa étudiants yaa ngi nekk nekk nii nekkuñu dans de bonnes conditions au moment où yaa ngi inauguré ay hôpital sa hôpital yaa ngi nii c'est pas fonctionnel mais xam nga booy ndox ci ak lëndëm ci fakkastalu fakkastalu sax mu mënula ñàkk sax mais booy tuut ci kàmb ngay dem réew mi ci ginnaaw la jëm mënuloo nee na woon mënuma leen musuma leen a wax dara lu jamono weddi waaw du ci àddina réew mii tànk ginnaaw la am nga mu tànk dañuy fo kii liggéeyu dafa ñëw pour ndaata talax di ngóoru mais xam nga ni lii muy def tey jii ay tournée yi lii ay chef de service wala ay directeur ñoo ko waroon def mu toog fii di xalaat askan wi ak coût de la vie là au moment où say étudiants tu as cinq mille xaw ma sept yoo xam ni ba léegi orienté wu leen say doomu ngi nii di jàng ci ay abri provisoire bu bu xiinee sax duñu jàngi yooyu coût de la vie très cher askan waa ngi bëgg a dee fi mu nekk nii ah. dara gaañoo ay travaux foo ñëw ñëw Malika ji kay nga xam ni tey sa waay poussière yi ñuy bëgg a rey sot ñëpp a a ah ay nekk fii di def loo xam ne lii ay ay service wala ay sous-préfet ay gouverneur nga waroon a yabal ñu koy def mais lii tourne circule de lii circule mais xalaatul moom xalaatul askan bi de moom fi mu nekk nii na nanoos rek mais lii muy def nii tey bitim réew boobu bee muy dem di yalwaane dafa wayaane dafa ñaani loolu duñ ko def ñoom boo doo leen gis mukk ñuy di di mobiliser ay tata wala ay njaga njaay ak affaire yooyu moo tax du ñu dem. Hmm. tànk ginnaaw la dem tànk ginnaaw la ñu am. Hmm. Euh, Assane kon ñu xaar keneen ñu jël ko ci ligne bi bu fekkee waxtu wi may nañu ko 88 628 98 98 allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam Mouhamed Ama. waaw. maa ngi nuyu man la Gassama. Gassama ñu ngi lay nuyu. iya euh, maa ngi ziare moom Adama xam naa ne daal. Hmm. sama waxi démb mooy nekk sama waxi tey. Hmm. lépp lu doy def xoolal ëllëg parce que waxoon naa ne fi président Ablaye Wade. Hmm. toog naa fi ci rajo bi fii naa dégg ñuy sànni xeet otom naa ni keroog def naa ko. ma ni téye fi lii jëm bu leen ree boobu ñu ngi soxla toog ci nguur gi. xam nga loo xamante ni nit moo koy indil boppam problème dafa mel na du suñu doom yi di leen di yare. il faut au début. suñu gisee lu warul loo xamante ni ñun dañoo yar du suñu aada du suñu cosaan rek suñu gisee ku ko defee la ñëpp ànd condamné ko loo ko contre contre nga condamné ko parce que lii raam gis nga léegi yaa ngi dégg ay kër yu ñuy taal yaa ngi dégg ay oto jàmm yu ñuy taal yooyu kenn mësu ko woon a dégg nit léegi dañoo am fit boo xamante ni li koy mën a arrêté mooy su nit defee lu noonu ñu ñëpp taxaw sanctionné parce que ku bàyyi lii rëy ku toog ba ëllëg si président Macky Sall jógee kii ñëw dina am de sérieux problèmes parce que dina fekk jeunes yu gën a am fit ñii hmm. te loolu li ñu ko mën a aar mooy nañuy bokk ñu ñëpp yaa xale yi di condamné au début hmm. les jeunes sénégalais faut pas détruire ce ce que vous appartient hmm. li ñuy détruire ñoom ñoo ko moom leneen li mooy président bi na xool système université yi ni mu ko def booru Casamance gis nga jël nañu fa ay base rebelle na xool étudiants yi comme dañu am doole suñu excès ba yenn niveau yi jeunes yi wàññi salaire député yi ak ñi ñuy fay ay milliards ñu jël jeunes yi ku bëgg a def militaire ñu testé la su fekkee amoo benn bopp ñu tourné leen ñu dem ci militaire parce que dañoo toll ci jamono yoo xam ne il faut nga sécuriser sa réew comme boobu jeunes yi bu mu leen di bàyyi ñuy jàng ñuy génn di chômer nag ñu leen di dugal ci militaire ci teel ñu yóbbu leen ci àll ba militaire yi jël ñu formé ñu nekk ay militaire aar Sénégal aar li Sénégalais moom. Hmm. sama soo. Ah, mu ngi noonu Assane eh, jeexal na ñoo xaarati keneen ci ligne bi biir réew mi walla bitim réew ci yooyu lépp ponk wax sa xalaat beneen auditeur allo. waaleykum salaam wa. maa ngi bi ñu ngi lay delloo ziar wa. ah di kii rek di bëggoon indi sama participation. ayca. waaye de bokk na ci jamono. Mhm. ñuy déglu jamono. Mhm. surtout di yaakaar si yéen ñoom journal ci am kàddu. damay laajte donc ndax actuellement fi nekk Sénégal ndax journée euh, culture kii yi muy def nii tournée yi ndax priorité la ci Sénégal jamono ji actuellement nga xam ne pandémie lañ jógee lépp cher dara doxul ci dëgg bi est-ce actuellement priorité monsieur le président de la république mooy di def ay tournée ñu mel nii de deux ñaan ngir yàlla wala yu rasul réewu Sénégal na fexe mu am légitimité na nekk légitimité ci ci ci moom lu mu jiite légitimité ci député yi légitimité ci maire yi ndax nag caaxaan baaxul kenn du fooyee dëgg te yàlla nañu yàlla musal ñu nekk ci dëkk boo xam ne dañuy fooyee dëgg fa élection dañ koy gañ ci légitimité élection kenn waru ko truqué élection kenn waru ci fo peuple tamit kenn du ko fooye ndax peuple ñu lay topp di dugg ci àll bi am na ñu la ëpp wilaaya ñu ñoo la ëpp lii ñu ñoo la ëpp lële ñu nga leen di poussiéral di leen di def leneen ak leneen yoo xam ne dara du ci priorité réew mi il faut yéen ñi am kaddu nañu wax jàngal xale yi priorité ñu bàyyi mag ñi comme que mag ñi adduna dépassé na ñu récupéré xale yi wax leen lan mooy priorité actuellement Sénégal fan la jëm fan la toll di moment que nga xamante ne actuellement découverte yaa ngi ne lëmb ci adduna ñëpp a ngi dem ci yeneen développement ñun fan lañ toll di ñaanal sëñ Moustapha si yal na ko yàlla yàggal yal na ko yàlla bàyyi. yal na ko yàlla sutural te aar ko te sàmm ko si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. amiin waaw ah, ñu jaajëfal ko Assane mu ngi yëkkati loxo ne waxtu wi dab nañu kon xam naa fii lañ koy faf rek daal di yëkkati diggati leen daje yeneen jotaay ci wàllu wax sa xalaat jéggalu ci ñi desoon ci ligne bi. 22 heures Adja Xabsa Elimane Wane ci xibaar yi ci yaatal kàllaamay tubaab jaajëfal bu baax a baax Assane Thioune mi ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mu ci biti ak jàmm biir gudd fan ak wér wér la am ak mën ak fekk ak tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf kon nag Sud lañ ciy daal di toftal laata 22 heures jërë ngeen jëf.